société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may de presse dali nag jàmm ñu ànd xëy yér yéen i kaay ñu xëyando yéen i kaay gi di réew mi quotidien di ñu xibara naan ñu démb la ñu doon député yi ci assemblée nationale ne ma péncum ndaw réew ma waaye nag mbir mi démb pëccëxoo na lool maanaam bis la boo xam ne démb tàngoon na Amadou Mame Diop la ñu daal di tabb ngir nag mu jiite assemblée nationale journal bi nee na yi dañu ko mujjee njuuy moom Aminata Touré ñi nga xam ne nag ñooy opposition bi démb ñoom mujj ñu sax voté ndax dañoo boycotté li nga xam ne mooy vote bi la nga xam ne moo ko waral ñoom nag nee nañu ministre yi nga xam ne ay ministre lañu ba pare nekk ay député ñooñu amuñu sañ-sañ voté te loolee mënuñu ko nangu tey mënuñu ko nangu ëllëg loolee fi coow li commencé yéen kaay gi nee na li nga xam ne moom la ñu mujjee def dem jël gendarmerie maanaam jël ay nag moom la député yi doon xeex ci seen biir ak saagante nday mel na ne tuleeg màlle journal bi di réew mi quotidien moo xëy di ñu ko xibaar journal bi di sud quotidien nee na ñi nga xam ne nag ñooy gendarme yi démb ñoo mujjee surveiller li nga xam ne mooy vote bi ngir mbir mi mën a am ci biir assemblée nationale yéen kaay gi de la témoin nee na niki démb kaaw moo am ci assemblée nationale maanaam ndorte assemblée nationale bi démb kaaw yu bare bari yoo xam ne dañu ko mujjee xotte ay doxalina ak ay jëfin yoo xam ne ñaaw na ba jéggi dayoo askanu Sénégal démb am nañu gàcca am nañu lu leen metti am nañu lu leen naqari am ñu mbetteel ci député yi nga xam ne démb gis na ñu leen ci assemblée nationale ñuy saaga ak xuloo ak xeex yéene kaay gi di 24 heures nee na ñetti groupe parlementaire moo am Benno Bokk Yaakaar benn groupe parlementaire Yewwi Askan Wi benn groupe parlementaire Wallu Sénégal benn groupe parlementaire yéene kaay gi di exclusif nee na assemblée nationale ubbi tey xeex tey ubbi tey xeex tey li ñu doon wax naan ubbi tey jàng tey wala ubbi tey grève tey waaye nag assemblée nationale ubbi tey xeex tey la ñu daal di gis yéene kaay les ko nee na li nga xam ne moom la ñuy gis assemblée nationale ni ki démb maanaam ay député yoo xam ne dañu doon jongante reewande mën la député yoo xam ne dañu doon jongante xamadi moom la ñuy gis ni ki démb ci assemblée nationale ndax nag kenn ku nekk yaa ngi jaay sa morom ne maa la gën a xamadi maa la gën a réew maa la gën a ñàkk teggi na loole la journal bi de les ko wax ne moom la ñu gis démb ci assemblée nationale ñaaw na loola yéen kaay gi di ko xam ne mooy Macky Sall ndax Aminata Aminata Touré mi nga xam ne moo nekkoon tête de liste nationale benn bokk yaakaar ci élection yi ñuy génn dañoo njortoon ne moom la ñuy jiital jiitaluñu ko waaye nag moom Aminata Touré démb dafa mujjee gedd gedd assemblée nationale ma ne la bind leen message bu saf sàpp daal di wax ne Macky Sall mii maanaam jéem a tànn daal ay njabootam ak ay njabootam ak nangam sangam daal maanaam moo ko gënal militant boo xam ne def na liggéeyam militant bu mérité yéen kaay gi de enquête ñu xëy fekk fa Thierno Alassane Sall moom nag ñaawlu na bu baax a baax li nga xamante ni moo xew assemblée nationale Barthélémy Diaz dafa ñëw fekk député Benno Bokk Yaakaar di wax ma ne la Barthélémy jekk-jekk këf micro bay daa ko yóbba yéen kaay gi de laas nee na Aly Ngouille Ndiaye Amadou Ba ak Aminata Touré ñooñee dañu leen a jàppe journal bi nee na Aminata Touré naka profilam ci Facebook bi moom ak photo Macky Sall ñoo fa nekkoon ak couverture bi waaye nag loolee lépp Aminata Touré daf koo mujjee dindee ma ne la mere na lool ki nga xam ne mooy Macky Sall seen diggante kay mën nañoo wax ne na ni ki démb li nga xam ne nag ci wàllum commission yi démb mujjuta am tey jii la ñu koy amal naka yéene kaay gi du l'observateur nee na jamono jii li nga xam ne moom la ñuy gis assemblée nationale doy na waar génne xeetu doy war goo xam ne sunu ëllëg ci sunu démocratie lëndëm na loola journal bii di la mandat nee na Aminata Touré nag mbaadu dañu ko humilier wala dañu koo trahir yéene kaay gi di réew mi ko di jee ñu koy fekk a fa Birame Souleye Diop mi nga xam ne nag moo bokk Pastef te jiite groupe parlementaire Yewwi Askan Wi nee na lii nga xam moo am assemblée nationale maanaam ab coup d'état législatif la ndax nag ñi nga xamante ni nag ñooy waa benn bokk yaakaar dañoo jalgati li nga xam ne mooy constitution bi ak ñoom fan la ñu teg mën a la tabb am njiitub assemblée nationale boo xam ne opposition bi ñu ko loole nag mooy coup d'état législatif ndax nag ministre yi ñoom amuñu sañ-sañ benn yoona maanaam di ñëw di voté assemblée nationale ndax bis ba nga xam ne moom la conseil constitutionnel waxoon ne ñii ay député lañu boobee la ñu amoon seen malaanu kiiraay boobee la ñu nekkoon député yéen kaay gi di source ak ñu xibaar naan ñu Guy Marius Sagna moo joggati congolonko gi ndax nag Guy Sagna a ah, ginnaaw bi mu xottee li nga xam ne maanaam mooy bulletin yi ñu ne déetawaay dafa dem taxaw ca kaw taabal ba Barthélémy Dias këf micro ba yéen a kaay gi di la Réveil Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu Aminata Touré yàggatul dara dana créer appartement te nag dina ay responsable yu nekk ci Benno Bokk Yaakaar APR yoo xam ne danañu bàyyi Macky Sall yéen a kaay gi di Libération xëy di ñu xibaar naan ñu cacophonie totale moo am démb Assemblée nationale yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Barthélémy Dias nee na ñii ma ne li nga xam ne mooy constitution bi loole la ñu def yéen i kaay gi di lay siko nee na démb assemblée nationale xeex bu métte métte amoon na fa diggante ku ñuy wax nguuda jéen yeewi askan wi ak Ami Ndiaye bu benn bokk yaakaar journal bi nee na Ami Ndiaye mu benn bokk yaakaar bii sax xeex bi bi mu taree mën na la périg bi mu tegoon si bopp bi dafa mujjee riira yéen i kaay gi di mi ko di jee nee na Cheikh Omar Anne ak Karim Xurum Xaq mandat nañ leen dépôt yéen i kaay gi di record Ligue des champions choc bu am na tey ji diggante Bayern